sama benn ñu gis tey mhm. déclaration bi nga xamante ne seetaan nañ ko léegi ci télé bi mhm. monsieur le ministre Guèye wax ne président tànn na tête de liste bu Benno Bokk Yaakaar en tant que membre de la coalition yow ban ban ban réaction ci def dañuy wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ñu sant yàlla bu baax julli ci yonentam bu tedd bi tey njëkkee suñuy kàddu di fàttali ñëpp ne ak lépp lu mun munti xew ci loxo yàlla la ne yàlla moo yor ay dogalam di dogal li ko neex li xew nag neex na dégg neex naa expliquer c'est tellement simple mooy kenn mënul defar omelette te tojoo nen président de la république Macky Sall moo yilif coalition Benno Bokk Yaakaar yilif ma yilif Seydou yilif Cheikh ba yilif ñun ñëpp gars yi dem nañ bi ñu demee ba affaire bi dingoor président il fallait que moo atte atte na maintenant nag lu nit def am na ay conséquences dama jàpp ne ay gor bu ñuy ànd dañu war a ànd àndu nawle dama jàpp ne ay góor bu ñuy ànd dañu war a ànd ci dëgg dama jàpp ne ay góor bu ñuy ànd dañu war a ànd ci di waxante dëgg waaye dafa rafetul yow nga soxla dara tey ne ma jàppalee ma lii bu subaa ma jàppale la suba nga jot nga may xool ay bët te loolu xew na ci biir benn Bokk Yaakaar biir Médina maintenant il y avait des kenn ku nekk lobby nga rayante nga ba yàlla dogal li mu dogal ñi ngi encouragé suñu frère Cheikh Ahmed Tidiane ba di ko félicité ci choix bi président porté ci moom mu war a nekk candidat wu Bokk Yaakaar ñi ngi encouragé le ministre Seydou Gueye di ko félicité moom tamit ci liggéey bu am solo bi mu liggéey nga xam ne yoon bi wéetoon na 2012 ba ni président de la république jëlee nguur gi ba ni ñu demee ci ay yeneen élection ak yeneen élection mu ñàkk yi yàlla dimbali ko ba mu am ñeneen ñu ñëw jàppale leen ba ñu gañe moom tamit dañ koy jaajëfal xamal ko ne ko wax dëgg yàlla am na mérite mais man li may wax fi mu nekk nii du concerné ñooñu ñëpp décision bi président jël moom la engagé ñi mu ko jëlanteel ñoom la engagé man Mouhamed Bassirou jaaj dama yor mouvement bu tudd mouvement taxaw am mbooloo moo xamante ne dafa topp sama ginnaaw ma déclaré sama candidature biir Médina ñëpp dégg ko donc que ñu que ñu porté candidature Seydou ou Cheikh Ba man li ma amaloon importance mooy ñu porté sama candidature wàcc na sama candidature porté na bu Cheikh wàcc na fi candidature Seydou porte na bu Cheikh maintenant nag ah ñun wax dëgg yàlla ameluñu kenn dara ñun dañoo amel man bokkuma APR na wax bi leer mouvement laa yor je maintiens ma candidature na loolu leer maa ngi def samay pexe ak sama partenaire pour ut sama yoonu bopp am sama lissu bopp balaa dépôt yi di jeex incha allahu rabbi ay doomu Medina yoo xamante ne jàpp nañ ne ay doomu Medina lañ te lii xew nii yëguñu ci seen bopp parce que nag wañaar loxo bu metti daf cee am li lii xew nii wañaar loxo bu metti daf cee am parce que man jàpp naa ne waxtaan bi ñu waroon waxtaan ak nañ ko defee ak lobby yi ci am man dama ko yëgoon bien avant moo tax bokk ma ci déposé wu ma sama candidature ci ñoom doon déglu président ndax moom laa waxal am na sax ay chef coutumier wala benn chef coutumier boo xamante ne lobby na pour candidature Cheikh Ba jaarale ko ci benn waay bu yor benn parti boo xamante ne dañ ne dañu wax mu jóg ne moom mooy commencé nu mu tuddati euh, euh, euh, moo moo moom mooy initiateur u lii jot a xew nii tey ba li ngeen gisoon fan yëpp Medina ñu gis ko mooy dañuy voté ak dañuy nangam ak dañuy sàngam soyons plus responsables man Mouhamed Diagne tënkuwuma ci ay waxu ay voto ay PS ak ay kiiw ay président nee na li je suis candidat je maintiens ma candidature kenn ku ci nekk nag ci ñoom yàlla na la yàlla defal jàmm mooy Seydou li mu jot a liggéey def ko ci lu baax si Benno Bokk Yaakaar def ko fii yàlla na ko yàlla dimbali ba fayeeku ko bu ko fayeekuwul ci politique fayeeku ko ci boppam njabootam ndax kuy def lu baax moo lay fay waaye Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu ngi koy wax ne ko ñu ngi lay encouragé ci yoon bi di ñaan yàlla may ko ndam ci yoon bi mu nekk loo xam ne en ne la nga jàppale xam ne mooy tuddali si bu boobaa nooy def président président ku dul man su la woowee nga jóg dem bu ma nee ma ñëw jàppale lan tête de liste non man jàppale wu ma kenn Seydou Seydou est-ce que président wax ko mu jàppale démb Seydou gisante naa ak président démb ñu waxtaan ñoom ñaar la ñu waxtaan xaw ma ko mais man je suis ñett et catégorique sur ma candidature ku may jàppale man Mouhamed Diagne su ma demee ba du ma candidat ku may jàppale man maa koy tànnal sam bopp du président moo ma koy tànnal du Massamba du ma Demba waaye kay njëriñu Médina incha allah man je suis un acteur dans la Médina je ne serai jamais un mooy même su ma nekkul candidat bu ñu demee ba ci biir problème am na nekkuma candidat incha allahu rabbi dinaa am candidat mais sama candidat man maa koy tànnal sama bopp te intérêt Médina mooy tax ma tànn ko mun naa xewee fu nekk na surprise mun naa am